Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, honorables députés, je voudrais, à l'entame de mon propos, euh, vous adresser mes remerciements les plus sincères pour euh, la qualité des débats qui nous retiennent depuis hier matin. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention, mais également avec beaucoup d'intérêt, toutes les questions ainsi que les interpellations qui ont eu par moments trait au budget du ministère de l'Intérieur, mais en d'autres endroits, ces questions ont porté sur peut-être des considérations de type personnel, ou à tout le moins étrangère à l'objet de la session ou en tout cas de la convocation pour laquelle nous sommes là. Nous nous efforcerons, dans le cadre des réponses que nous apporterons aux dites questions et autres interpellations, de mettre de côté tout ce qui a trait aux questions, commentaires ou critiques d'ordre purement personnel. J'ai entendu euh, ces derniers jours beaucoup d'interventions dans la presse et qui d'ailleurs venaient de certains leaders de l'opposition qui invitaient le gouvernement comme les honorables députés à faire le focus sur les raisons pour lesquelles ils sont présents dans cette enceinte. Nous sommes là pour parler de budget, nous sommes là pour parler de programme, nous sommes là pour parler d'action. Je pense que globalement, les débats devraient tourner autour de ces euh, différents sujets. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, vous me permettrez, pour ma part, de ne pas m'éloigner de l'objet, de ne pas faire hors sujet et de rester sur l'essentiel. Alors, euh, je voudrais d'autant plus le faire parce que très tôt, j'ai été adepte d'une très belle réflexion d'un excellent penseur qui, je le cite, disait que les esprits brillants ou les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Alors, pour cette raison, pour cette raison, vous me permettrez de faire le choix. De tels propos ne sont destinés à aucun des honorables députés qui sont présents dans cet hémicycle, mais c'est la pensée qui fonde mon choix de ne pas répondre sur les questions d'ordre purement personnel. Alors, cela étant précisé, je voudrais, pour les réponses, les concentrer aux différents programmes ou à l'essentiel d'entre eux qui retiennent l'attention dans le cadre de l'examen de ce budget. Il a été beaucoup question de sécurité publique. À cet égard, j'ai entendu bon nombre de députés soulever des cas isolés d'infractions de coups et blessures volontaires, de cambriolage ou bien de vol à l'arraché. L'ambition du ministère de l'Intérieur que je dirige, sous les hautes instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et sous la coordination du Premier ministre Amadouba, cette ambition est de faire en sorte qu'il y ait zéro crime, zéro délit et zéro contravention au Sénégal. Hélas, et certains parlementaires, certains honorables députés l'ont rappelé, il n'y a pas de société dans laquelle il n'y a pas de criminalité. Dans toutes les sociétés, le phénomène criminel est un phénomène inhérent à la société humaine. Donc dans toutes les sociétés, il y aura des personnes qui auront à cœur de faire en sorte que tout se passe bien, qui respectent les lois et règlements, qui respectent leurs prochains, tout comme il y aura des personnes des citoyens donc, de notre pays qui, de temps à autre, on l'espère, seront en conflit avec la loi. Pour ces cas, leur prise en charge est efficacement assurée par nos forces de défense et de sécurité. Et je profite de cet instant précis pour leur rendre un vibrant hommage. Ces femmes et ces messieurs qui se dévouent corps et âme nuit et jour, à assurer notre sécurité mérite, nous tous, notre respect. D'ailleurs, je n'ai pas de doute sur le respect que vous autres honorables députés, vous avez à leur égard et tous les membres des différents groupes parlementaires ont eu à le dire ici. C'est pourquoi d'ailleurs, hier, à la fin de la journée, je me disais sans nul doute que ce budget allait être voté à l'unanimité. Mais je le disais parce que tous ceux qui se sont succédés ici, hier, ont demandé l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité, l'amélioration de leur rémunération. Et certains sont allés jusqu'à demander l'érection de commissariats ou de casernes dans leur localité. Mais comment on peut demander l'amélioration des conditions de travail des personnels des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'érection de commissariats sans voter un budget Avec quoi nous allons le faire Ça, c'était pour dire que hier, à la fin de la journée, j'avais pensé que sans nul doute, on allait voter à l'unanimité euh, euh, le budget du ministère de l'Intérieur, mais aujourd'hui, je constate qu'il y a eu un rétropédalage, pour ne pas dire un contre-pied, comme on est à l'ère de la Coupe du Monde, ou un changement de pied. C'est selon pour soutenir que ce budget ne sera pas voté parce que les moyens qui sont destinés donc, euh, à ce budget, les crédits qui seront donc votés pour ce budget sont quelque part destinés à euh, réprimer donc de l'opposant. Mais je vais poser une question, et une seule. Que diriez-vous lorsque vous serez de retour dans vos différentes localités aux 15 097 chefs de village qui attendent leur indemnité pour l'année 2023 Que dira-t-on aux différents hommes composant la police, les ASP, dont on entend de amélioration de leurs conditions. Que leur dira-t-on concernant l'amélioration demandée de leur pécule mensuel C'est dire donc qu'en toute chose, je pense qu'il y a une certaine cohérence à observer et celle-ci voudrait que lorsqu'on demande une amélioration, qu'on demande dans le même temps euh, qu'on ait donc une position consistante à voter leur budget. Alors pour les questions relatives à la sécurité publique, dinaa ci leeral lu bari damay tàmbali ci wax ni bi ñu ñëwee son excellence monsieur le président de la république Macky Sall dénkuñu département intérieur waaye tamit am loo xamante ni moom lañu wax ni nañu ko taxawee jox ñu ci ay ndigal jox ñu ci ay tegtal ba pare wax nan lañ ko war a doxalee dama leen bëggal fàttali tuuti rek lan lañ ci def ak léegi diggante 2021 ak léegi li ñu fi inauguré defar ko ci ay commissariat biir région de Dakar ñëpp teg nañ ci seen bët biñ koy inauguré commissariat parcelle unité 15 cité Aliou Sow Golf Sud Zak Jamagan Diamaguène sikap Komiko Thiaroye komiko Rufisque Est dans la région de Dakar gis dans les régions Linger, Kungel, ak nyoro commissariat yu mucc ayib équipé ba pare defar li nga xamanteni moy ci bir ay jumtu kay yo ni dafa deppo ak jamono waye tamit ak ak ak yellefu doomu adama ci walu caserne sapeur pompier gis nañ tamit crédit yi nga ni voté loon nañ ñuko lan lañ ci liggéey honorable Yakarna député Farba Ngom ko Fass Barigo bo Géoul bo démé bo Xombol ni lu musul am Sénégal Nous def ci 4 milliards 500 l'École école nationale des sapeurs pompiers musuñu am Sénégal bi indépendance amee ak léegi école boo xam ne dañ fiy former ay sapeur pompier sur sept hectares boo demee fii nga xamante ni mooy Toubacouta ñu defar fa benn base nautique boo xamante ni dañ fay yokk seen xarañte ci naka la ñu war a mën a taxawee doomu aadama yi bu fekkante ni soxla nañu ñu euh, dimbale leen alors euh, les sur la sécurité publique dama bëggoon leeral que ni bi ñuy wax affaire insécurité dama bëggoon am tuuti cohérence wax naa léegi amul dëkk boo xamante ni léeg-léeg du am ñu jadd yoon du am ñoo xamante ni dañuy def loo xamante ni ak yoon di lor doomu aadama yi waaye tamit di leen lor ci li nga xamante ni mooy seen moomeel mais insécurité d'année en année dafay reculer au Sénégal les statistiques wax mu statistiques disponibles. direction de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale produire que de 2021 à 2022 il y a eu un recul de la criminalité de 9,52 Ce sont c'est des chiffres qui sont vérifiables et disponibles au niveau de la sécurité publique te li ko waral commissariat yi bordé ministère des forces armées brigade de gendarmerie yokuna, personnel bi yokuna jumtukaay yi yokk na bi yokk na alors loolu ma ci jaaraama di ci sante bu baax ni nga xamanteni ni le police ak gendarmerie doxalin bu bes bi ñuy lekkelo di ko bokk def week-end bi passé ku nek gis na vendredi ak samedi ak dimanche les opérations combinées de grande envergure yi nga xamanteni ñi ngi ko doon def sur les régions de Dakar Thiès et Diourbel te loolu noonu wéyal nañ ko weekend bi dinañ ko def ci biir semaine bi te li ko waral mooy dañu gisoon ni traditionnellement police dafa am secteur am gendarmerie am secteur am ci wàll boobu am na ay njuumte yu bëri yu ma ci dégg seetlu ko ci ni ñuy laajee question yi ci xalaat ni gendarmerie euh, dafa am foo xamante ni waru fa nekk walla police dafa am fu mu far a nekk dafa am benn décret pour répartir compétences. La police est dans zone urbaine la gendarmerie est dans zone rurale Nous savons que ni Sénégal actuellement urbanisation bi yegg na ci niveau boo xamante police de plus en plus présente dans yenn zones l'objectif qui est poursuivi c'est que dans tous les départements dans tous les chefs-lieux de département nous am un commissariat mais gendarmerie ñom ñoy nekk ci zone rurale yi motax damay profité honorable député Samba Dang Birkilane wala Mabo, bu fekkente ni gendarmerie mo fa nekk c'est parce que lolu dafa correspondre ak traditionnellement décomposition ou en tout cas li nga xamanteni mom lañu partager sen secteur de compétence yi mais mëno ñew ngay wax ni Birkilane zéro policier Mabo, zéro policier comme s'il n'y a pas de sécurité là-bas amna sécurité mais ña fa toogal état bi ci wàllu sécurité mooy gendarmerie mais boo ko waxee noonu dafay mel ni sécurité amu fa wala état bi dafa absent foofu te loolu damay profitoo ci loo xamante ni euh, kilifa diine bu mag bu nekk hakim bu ma sopp di déglu ay waxam muy Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dama dégg am na ñu ko cité. fii démb ay yoon yoon dinaa ko cité tey dama dégg muy wax ni Sénégal dañuy coow ngir dëgg réer maanaam bu fekkente ni déglu nga yenn wax yi da ngay laaj sa bopp su fekkee xam nga fee yi ni mu demee dangay laaj sa bopp wàññi ñii fee yi ñuy wax ak man yi ma xam ndax benn la waaye fekk na boobu Serigne Cheikh comme ni mu ko waxee woon dañu nekk ci dëkk boo xam ni dañuy coow ngir dëgg réer waaye nag may cité wat beneen xakim bu mag ndax suñu kilifa diine yi dañu nekk ñoo xam ni ay royukaay lañu nekk ñoo xamante ni dañu ñu jàngal e, yar njaboot gi Serigne Abdou Lahad Mbacké dafa am loo xamante ni tamit dama ko def e, yóbbal di ko fàttali sama bopp di ko fàttali ñépp dafa wax ni àdduna lu yàqu ñaar ñi ñoo ko yàqu koo xamante ni day waxta li muy wax xamu ci dara wala ki nga xamante ni day wax ba li mu wax jeex te noppiwul loolu nag li ma ci jublu mooy euh, lu nekk dañ koy bayeeg spécialiste yi lu nekk da nga koy bàyyeeg ki ko xam lu nekk da koy bàyyeeg ki ko jàng su fekkente ni man de noonu lay def même ak suma collaborateurs yi je les prends à témoin seen spécialité bu ma ci ñëwee dama leen di laaj waa lii li ngeen ci jàng lu mu wax décision bi nag boo koy jël nga teg ko ci un avis éclairé mais wax ci loo xamante ni xamuloo ko wala nga ciy wax ba li nga wax jeex te noppi lu yàq yaa ko yàq ba ba lolou taxna euh bo ñëwee ci yenn laaj yi nga xamanteni ni laaj nañ ko jëmele ko ci carte nationale d'identité yi dama ci bëgg indi ben léral euh profito tontu l'honorable député Rama Sissoko dafa wax muni dama waxone commission mom mo wax ni dama waxone man commission kani carte d'identité yi fay jeex 2023 mu wane fii benn carte d'identité boo xamante ni 2027 lay jeex mësuma wax loolu mësuma wax ni carte yi dañuy jeex 2023 dama wax ni lii nga xamante ni mooy contrat bi Sénégal amoon ak Iris dafa waroon a jeex au mois de mars 2021 bi mu waree jeex au mois de mars 2021

comme tout mo ci dess nak naka lañuy def ñu mais nous nañ ñu mayat ab dir ba nous ñaari at ñu nous a suñu pour suñ ci yeggé ñu mëna défaral suñu donte ñun ñoo mom machine dem wo partenaires yi négocier ak ñom wañi prix carte bi mu nek carte bo contrat bi avril Cardante bi légui avril ci contrat bi 2023 lay jeex contrat bi mom moy jeex 2023 contrat bi ñu am ak partenaire technique bi mais ñu ni carte yi ñom ñoy jeex 2023 donc entre contrat bu jeex 2023 ak cardante yu jeex 2023 comme Yalla ak Yali. mais lolu exemple le ci ni ci ni confusion Gawé exemple la ci ni jaxase xel gaawee exemple la ci ni réeral nit gaawee exemple la ci boo réeralee nit mu dugg ci jéeya naka lay mën a ba ci bir retrouver ni yow ndekete mom sur la base d'une information erronée qu'on lui a donnée il a pu prendre des décisions qui engagent des conséquences irrémédiables alors bo ñëwee ci passeport yi et j'en profite d'ailleurs ci carte d'identité yi ma léral ci benn mbir amna honorable député yu bari yu laaj ci walu carte dafa par exemple diaspora bi dañ fa am ay problème wax tamit ni ci am problème mais fofu aussi dama ciy profiter ma léral ben d'abord limay may léral carte nationale d'identité ak carte d'électeur Un honorable député wax euh, avant 2016 dañu amone ñaari carte d'identité benn bi nek carte dañu amone ñaari carte benn nek carte d'identité benn bi nek carte d'électeur ñu ñëw 2016 avec carte d'identité biométrique bi lepp nek ci benn carte laaj yu bari yu ñu ma laaj euh, xagn na mun ci tontu parce que d'abord suma rôle la mais deuxièmement waxtaan ci la leer leeral di soqe ko mais japp naa ni tamit laaj yu bari yu ñu laaj mi ngi ci loi yi te loi yi fii lañ koy voter c'est-à-dire loo laaj yu bëri yoo xamante ni dañ ma laaj ni ma yow ministre bi na nga ñu tontu ci lii ak ci lii ak ci lii mais loi yooyu yéen yéen a koy voté bon buñ ñu ma ko laajee mun naa ko fàttali mais ay laaj la yoo xamante ni tontu yi ñi ngi dab ñi ngi déjà ci biir texte yi ñi ngi ci loi yi nga xamante ni fii lañ koy voter première réponse bi ma ciy indi mooy c'est une loi de 2016 qui a institué la carte nationale d'identité biométrique première réponse deuxième réponse mi ngi code électoral article L38 alinéa 2 du code électoral dañu wax ni député yu bëri dañu wax ni dañ jaaxle et dañ jàpp ni affaire maguy la wala affaire càcc la wala affaire tappale la moo tax xale yi bu ñu amee seen carte d'identité ñu leen di tuddee primo votant boo demee ci ginnaaw ñu bind ci non inscrit ñu ni le ministère de l'intérieur mais code électoral la buñu voté fi té code électoral bi dama koy faut que naa honorable député Aliou Meng wax nako mais il y a eu 20 mois vingt mois de discussion tous les pôles étaient présents majorité opposition comme non alignés ñëpp waxtan na ci à l'exception notable du PDS qui a d'ailleurs voulu rejoindre plus tard mais ñëpp ñi ngi won ci waxtan bi biñu ci waxtané ñu def ci ay recommandations recommandations yooyu mom lañ teunk ci biir code électoral bobu loolu nga xamante indi nañ ko comme critique de ak ba paré diko ko diko di laaj mais ñi nga xamanteni ñoy acteur politique ñoo ci bokkoon ànd te ñom ñoo ñew voter ko fi muy article L38 alinéa 2 ñu ni pour nga inscrire ci liste électorale bi da ngay ñew déposer da ngay ñew wane sa carte d'identité donc loolu lan mo ci yoonu ministère de l'intérieur c'est dans la loi alors suma ma ci walu passeport yi d'abord ci carte d'identité yi il y a 76 centres à travers le Sénégal 56 commissariats 9 préfectures Yo xamanteni fait len ku fa dem dinañ la defal carte d'identité et dama ciy préciser wat benen bir carte nationale d'identité c'est gratuit dégg naa démb honorable Sanu John mu euh, tey la yakarna mu wax ni dañ ko rendre gratuit non c'est gratuit mais un décret d'application de 2016 sur la loi de 2016 qui dit que bu fekkente ni réeral nga ko boko ko da ngay ñew joxe benn timbre fiscal ou 10 000 francs mais lolu bu fekkente ni dafa réer la voilà, enfin mu mais première acquisition c'est une acquisition gratuite Donc, il faut nous la rendre. alors il y ci un passeport yi dañu wax ni euh, difficultés et d'ailleurs je ne voudrais pas quitter ce point sur les cartes nationales d'identité sans préciser qu'il y a six centres au niveau de la diaspora Déjà, en Afrique, on a Abidjan et Libreville. On a Paris. On a Brazzaville. On a Milan. On a euh, New York. Qui forment les six centres qui carte nationale Dans les trois, effectivement, il y a agents ou DAF Dans les trois, Paris, Abidjan, Libreville, il y a agents ou DAF Il y a une centre, autorité consulaire, ñoom ñoo recruter ay personnels yoo xamante ni ay sénégalais lañ di liggéey liggéey boobu su fekkente ni nos portes sont ouvertes su fekkente ni dafa am ay suggestions yoo xamante ni député de la majorité comme de l'opposition am nañ ko ci nos portes sont ouvertes parce que li ñu tax a jóg mooy defar te kuy defar mën nga toujours ñu wan la ni am na point boo xamante ni mën na gën a baax te nit ku nekk war nga humilité bu fekkente ni yaa ngi defar dara bu idée bu rafet bàyyee koo fenn nga jël ko pour donc nos portes vous sont ouvertes et sachez que sur ce plan-là il euh, n'y a pas de difficulté mais les cartes nationales d'identité sont produites régulièrement ça se passe très bien et c'est produit maintenant pour en arriver au passeport passeport c'est en 2008 que le contrat a été signé en 2008 mais est-ce état continuité là. Ce n'est pas parce qu'en 2008, le président s'appelait le président Wad, qu'aujourd'hui, oui, président Abdoulaye Wad, que, j'apprécie beaucoup. Ça, c'est. voyez. Bon, ça, c'est une autre question par contre. Alors, du coup, je disais que ce n'est pas parce qu'en 2008, qui dit le président Abdoulaye Wad, le Toudou, que le président Macky Sall nekk si beau pour bi que contrat yi nga a signé Lamas d'Aldissani. Et à état continuité le président Wade en 2008 avec le ministre de l'intérieur maître Ousmane Gom, m'ont signé un contrat pour 20 ans pour 20 ans de 2008 à 2028 nous avons signé contrat ce li est ci contrat bi partenaire technique bi dafa defar 16 centres d'enrôlement 8 sont à l'étranger et 8 yi au Sénégal ce moo nekkoon ci contrat donc si vous ni honorable député yu ñëw wax ni amuñu de centre d'enrôlement wala amuñu de centre d'enrôlement que ce soit à l'étranger ou au Sénégal nous savons d'abord que c'est quelque chose qui est dans le contrat d'abord et contrat bu vous ni ñaari parti un contrat international du ça yu la neexee pour nga ñëwaat da ngeen ci bokk juboo yow ak a ko signé gis ni diaspora bi am problème par rapport à carte d'identité les huit centres sont à l'étranger nous ngi normalement nous fonctionner normalement à chaque fois qu'on nous signale un problème ben, nous envoyer une mission Cette mission yoyu, de ngi 25 valises diplomatiques yi nga xamante ni moo contrat bi ba amul benn weer boo agent ou direction des passeports nous à l'étranger mu en Europe en Asie en Amérique en Afrique mais nous am adduna bu la li nekk ci contrat bi nga xool nan nga koy ajusté bu la àdduna dabee damay jox benn exemple bi contrat bi ñu koy signé en 2008 benn centre moo amoon pour toute l'Asie benn centre ba léegi nii benn centre moo am pour toute l'Asie centre bi mi ngi nekk à Jeddah xool leen Asie ni mu yaatoo ak sénégalais yi ni ñu nekkee ci diaspora bi pour toute l'Asie quand on signait le contrat en deux pour toute l'Asie quand le contrat a été signé en 2008 il y avait un seul centre d'enrôlement mais lolu bu fekkente ni am na ñu par ay valise diplomatique ñu dem ba demande bi bari lool jotna et jaduna et d'ailleurs instruction yoy la président de la république Macky Sall jox jox moy ñu wo partenaire technique bi wax ko ni nañ waxtanat ci li nga xamante ni moom est nekk ci contrat bi en termes de nombre de centres d'enrôlement mais aussi en termes de production de talents par an et du coup bu fekkente ni da ngeen di waxtaan da ngeen di mën a waxtaan ba juboo ngeen tënk ko bu fekkente ni waxtaanoo leen ba juboo fala budda il faut ngeen continuer ko sinon boo ko kasee am nay clause pénale yu nekk ci contrat bi parce que contrat bi biñ koy signé en 2008 dañu waxoon ni bu fekkee dagg nañ contrat bi avant 2028 li ñu wax ni moom la ñuy fay partenaire technique boobu ci xaalis bu ma leen ko tuddoon fii damay bañ waa wallu yi xaw a mer tuuti donc damay expliquer ni soo jëlee état non lay doxé mais téwul du ñëw di wax alors so so ñëwé ci walu ASP yi ASP euh, rappeler d'abord lan statue statut parce que ni ñuy présenter statut wu ASP yi léeg tax ñu baña comprendre réellement statut wu ASP yi lan la d'abord nous leen di rendre un hommage mérité di leen jaajëfal lool lay njëkk a def lan moko waral parce que ASP engagé civique volontaire la c'est un engagé civique volontaire Nous ko xamanteni da nga wax ni damay liggéeyal sama réew liggéeyal sama askan nekk au service de ma communauté parce que jàpp naa ni war naa jël sama bopp sama temps ak sama doole mettre ko au service de la communauté loolu mooy ASP c'est un engagé civique volontaire te loolu c'est son excellence monsieur le président de la république Macky Sall moom moo ko xalaat woo leen ko woo leen ci ndaw ñi wuy si ko mu créé ko en 2013 bim ko créé lan la waxo lan lañ waxone ci statut yi nga xamanteni décret bi moko prévoir dañ waxone ni bu fekkente ni def nga deux ans dañ kay renouveler une fois engagé civique volontaire nga nga ñëw def contrat bi ñu renouveler que une fois mais président bi mu gisee cawarte bi nga xamanteni ndaw yoyu am nañ ko engagement bi nga xamanteni ndaw yoyu am nañ ko bëgg seen réew bi nga xamanteni ndaw yoyu am nañ ko mu ni ñi duma len muy renouveler sen engagement bim ko renouveler mu tok ba tiag mu ni lii sax du ko def mu nek lo xam engagement la comme yu melni ci yenen rew yenen rew da ngay gis so jëlee JICA au Japon nga jël corps de la paix aux États-Unis dañuy ñëw pendant un moment ñu dag sen jang wala dag sen liggéey dem liggéeyal sen rew ñaari at wala ñetti at te ken du len fay dara ñu door a wëlbatiku nekkat ci sen yitte président ni ñi kat li nga xamanteni mom la len di jaajëfalee moy damay pérenniser ce corps là.

pour stabiliser nous revaloriser leur traitement bi ma le 4 mars 2020 non le 4 mars 2021 précisément le 4 mars 2021 j'ai pris un arrêté arrêté Bobo, me mettre en place un comité de réflexion le ministre auprès du ministre de l'intérieur qui est ici présent nek di ci ak administration territoriale liguey ci ak police liggéey ci ak gendarmerie liggéey ci ak armée bi ñu liggéeyee loolu ba pare ñu yaatal ko boole ci tamit ASP yi dem ba stabiliser ko def ay atelier de validation bi ñu ci paree ñu indiwaat ko nekk di ci liggéey ba utal ko tur te loolu wuute na ak di jël ay ñoo xamante ni c'est de façon partisane ASP yi munoo wax ni ci gox bi lañ jógee wala ci gox bale lañ jógee foo dem ci senegal fa lañ bawoo xeet qui dem ci Sénégal bokk nañ ci classe sociale ou tranche d'âge qui ci Sénégal di nga leen fa fekk tant que en tout cas un euh, âge qui na leen permettre ñu liggéey lool nak ñing avec le ministre du budget avant même transformation bi intervenir le ministre des finances et du budget avant transformation di intervenir président jox nañu ndigal et loolu mi ngi le ministre des finances et du budget dina ci ñëwaat en 2023 déjà mais relèvement li nga xamante ni moom leen pécule en 2023 donc lolo, lu leer la tamit wax nañ ci wàllu euh, deux roues de Tchak Tchak. Tchak Tchak, tout le monde a fait, j'ai de profito ci ma nationale pour rendre hommage au sénégalais qui l'a créé qui a créé l'expression Tchak Tchak. il s'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Samba moom moo créé moowu cag-cag ba pare protéger ko juridiquement alors bi nga xamanteni euh, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nga xamanteni démarche innovante rek lay def saa yu doxale ba ci yag dina taxaw setlu xol lan la ci indi ci yessal mais tamit xol lan la ci dugal ci walu euh, appréciation ak angle bi mu nara gëna mëna baralé mbir yi mu créer un concept innovant bu mu tuddé jokkoo ak Macky djoko ak Macky bobu émission ben entretien le bu muy def ak les populations di wax ak ñom directement sans intermédiaire ñu poser ay questions du am filtre muy tontu parce que tay buñu bindé rapport rapport bi ni muy tollu à la base bu yegg ci président de la république du tollati non ki nekk ci. Euh, à la base échelon bi nekk sous préfecture wala mu nekk ci village bi bu bindee benn rapport rapport boobu bu yegg si président de la république résumé yi ñu koy def dina tax am na loo xamante dinañ ko dindi président de la république ni damay wax ak directement les populations tuddee ko jokkoo ak maki. ci ben jokkoo ak maki Bobo. am ci ben jeune bo xamante ni dafa jël parole mi ngi tudd Magama Sall mu wax le président de la république ni ko ñun ñi nga xamante ni ay jeunes lañu di liggéey ci deux roues yi moo xam professionnel ou deux roues yi la moo xam amateur ou deux roues yi la waaye lu ci mënti nekk bokk deux roues dañu bëri ay problème problème yoyu. bokk na ci suñu mutation bokk na ci acquisition équipement yi ñu soxla mais bokk nañ ci jaawale yi ñi jaawale ak agresseurs yi sax ñu metti ñu président dal di may jox ndigal nima je nga leen yow ak le ministre des transports dama ci profité wax ben honorable député bu wax ni ministre des transports dafa jaar na